أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marhaban bikum ma al anbiya alayhim salaatu wassalaam ñi ngi ànd ak yéen ba tey ci histoire yenent yàlla ayub alayhi salaatu wassalaam sunu dars tey mooy wa kaana shifa bi iznillahi jalla wa ala ñi ngi toll ci waaji bi ko yàlla nattoo ci natt yu méttee méttee métti xeetu natt yépp mooy ñàkk alal ñàkk njaboot ñàkki mbokk ba pare wéradi loolu yépp sunu borom subhanahu wa taala teg na ko ayub ayuba daal di koy muñ ay bés ay semaine ay weer ay at te xam ngeen ne nattu moom su matee rek tawfiq daal di ñëw boroom xam-xam yi dañuy wax ne nattu yàlla subhanahu wa taala moo koy teg jaamam lu tax ndax bëgg ko bi mu ko bëgg moo tax mu koy natt jàng nañ ci xadis yonent bi ne inna allaha ida ahabba qawman ibtalaahum yàlla bu bëggee ay nit da leen di natt yàlla bala muy takkal nit garaat daf koy natt alxuraan moo nu ko dëgëral alif laam miim ahasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum yàlla bala muy takkal nit garaat daf koy natt ayub yàlla subhaanahu wa taala nattu na ko ayub muñ foofu nag hunalika tawajjaha ila rabbihi foofu la jublu ci boroomam waaye mbokk yi li gën a rëy ci doomu aadama mooy muy bañ di fàtte boroomam comme li xew tey su yàlla nattoo nit feebar jafe-jafe lu mu mën a doon balaa nit ki di dem ci yàlla ut ay pexe ba pexe yi jeex ñu ne yàlla fi sës bu doon feebar la dañuy daw dugg ci sëriñ si maaman yi ci àll bi ba ñooñu jeexal seeni reen seeni sunguf seeni seeni seeni seeni seeni dara danewul ñu yóbbu la ci xërëm ya wër loola guy yi tuur loola deret sang la soow reen di loola ay xaru yu benn melo ba mu jeex takk ñu doog a dem hôpital mbooleem hôpitaux yi ñu dugg ci mbooleem ba lépp jeex ah ñu ne ah wax dëgg yàlla ñun dey li ñu yoroon jeex na léegi daal danoo fas yéene rek xaar yàlla loolu dangereux la jullit bu ko dara dalee ci yàlla la war a jublu avant dara moo tax mu ne hunaalika tawajjaha ayub ila rabbihi biddua foofu la ayub jubloo ci boroomam nag ñaan ko talaban minhu ayubaa ngi sàkku ci boroomam kashful balaa pour yàlla dindil ko nattu bi balaa bi yàlla teg ko yàlla dindil ko loolu alxuraan mënu ko nettali ci suratul anbiya aya 83 sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa ayuba iz naada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamar rahimin ee yow sama borom wa ayub iz naada rabbahu fàttaliku leen ayub boo mu woowee boroomam woowul keneen yàlla la woo yàlla mi ko moom mi ko teg nattu bi yàlla boomu la woo lan la wax boroomam mu ne anni massaniya dur man de yàlla jafe-jafe lor tegu na sama kaw lor laal na ma te yow yàlla wa anta arhamar rahimin bu fekkee am na kuy faje bu fekkee am na kuy joxe ñaan bu fekkee am na kuy joxe garab yow yàlla yaa ci gën a gaaw wa anta arhamar rahimin kuy yërëmaate rek yaa ko gën a mën a yërëme ndeysaan ci beneen saar suratu Saad kooku de war naa ci joxe kaamil alxuraan suratu Saad ban aaya la Ayuba wax suratu Saad aaya 41 lan la fa Ayuba wax da ngaa bëgg ci kaamil yi bismillah déedéet yow déedéet ku wax aaya bi rek incha allah di nga am kaamil suratu Saad aaya 41 Ayub mu ngi fay wax bu nuroog bee aha kaamil suratu Saad aaya 41 Ayuba ma ngi fay wax ak yàlla ci lor gi tegu ci kawam ba waxee aaya bi nga am kaamil déedéet wa anni massani ash-shaytaanu bi nusubin wa adhaab وعني مسني الشيطان بنسب وعذاب آه يو يلا seytaane de moom a teg lii ma nekkee moom xam na parce que seytaane moo gisoon ayuba ni muy jaamoo yàlla ci alal ji mu ne yàlla kii day ngistal te boo ko weddee ëffal ma ak moom yàlla mu ne ko dem mu ñëw fexe ba lépp yàqu jur gi dee tool yi lakk nit ñi lépp yàqu ayuba gën a gëm yàlla mu ñëw ci yaram bi terewul ayuba onkul delluwul ginnaaw est-ce que natt yooyu mbokk yi ñun mënoon ko léegi nattu ayub ñun mënuñu ko kon nag dañu xam ne mbir yi mbir yi du ay waxu kese kese kese li li li soxna si waxoon li française bi waxoon sànq ndeysaan égyptienne bi julli jot mu dugg ci jàkka ji daal di génne saakam ci hijaabam ci biir saakam daal di muuru julli pare lem kaala gi française bi daal di koy téye ci mbagg ne ko kaala gi fu mu de foo koy delloowaat mu ne ko ci biir saag bi mu ne ko xanaa waxoo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mu ne ko aha kay mu ne ko kon kaala gi warul dugaat ci saag bi ndax loolu du ay wax ay jëf la
française française moo ko wax égyptienne waaw déedéet déedéet dafa demoon dafa defi woon lune de miel am France Paris li lu jot mu dem ci jàkk ji julli teg saag bi génn xijaab bi teg ci moské jigéen ñi mu pare bu ko lemaat ab tubaab bu jigéen ñëw ne ko doomu ndey xanaa doo jullit mu ne ah kay mu ne xanaa waxoo ashhadu an laa ilaha illallah wa sallallahu muhammadu rasul mu ne ah kay wax naa ko kay mu ne ko lool nag du wax ay jëf la loolu su dëggoo kaala gi dootul wàccati ndeysaan yal na yàlla may dëggu borom bi mu ne fastajaaba allahu duaahu ñaan na yàlla nangu ñaan bi ndeysaan yàlla waxul ba suba ba ginnaaw suba fastajaaba allahu yàlla nangu duaahu wa kashafa anhu balaahu yàlla dindil ko li ko tegoon lor yi balaa bi musiba bi jàngoro bi feebar bi yàlla daal di koy dindil fallahu ala kulli shay'in qadir kon boo amee tey jafe-jafe bul dem ci kenn ñëwal ci yàlla foofu la pas-pas yi wuutee foofu la yëg-yëg yi wuutee foofu la ngëm-ngëm yi wuutee nit lépp loo la mën a dal lépp loo soxla bul fàtti mukk mukk mukk ñaari ràkka ñaan ci lool néew na ku ko def te amul amul amul saafara lan la li yàlla wax lan la ñoonte bi jàngale yàlla nee na rus na jaam bu ma tàllal loxo ma dellu ñun ñi sax toog fii wallahi boo ñibbi woon léegi léegi sa kër benn waay ñëw laajte ba yegg si ñëw ne kurux sa kanam toog ne la wallahi ñetti fan a ngi nii lekkuma ma bëgg rek boo fi yoree lu ma mën a reere rek même soom bi bu amul suukar sax bëgg naa naa lekk rek est-ce que da nga koy bàyyi mu dem da nga koy yërëm wala doo ko yërëm ma sama ak suñu borom nag yéen tamit nag nit sax am na noo koy ñaanee du la delloo waxuma la ak sunu borom yàlla ne yonent bi nee na yàlla nee na rus na jaam bi tàllal ma ay loxo ma delloo loxo yi noonu te teguma ci dara man yàlla rus naa loolu man yàlla duma buur boobu waykat bi day wax ne allahu in tarakta su'aalahu yaxdabu wa bani aadama hiina yusalu yaxdabu est-ce que dégg ngeen wax bi allahu in tarakta su'aalahu yaxdabu wa bani aadama hiina yusalu yaxdabu yàlla boo ko bàyyee ñaan dalay mere doomu aadama boo koy ñaan bis bu nekk dalay mere ah ah yàlla boo ko bàyyee ñaan dalay mere doomu aadama boo koy ñaan bis bu nekk dalay mere yàlla moom boo ko dul ñaan bis bu nekk mu mere la doomu aadama boo koy ñaan bis bu nekk mu mere la du benn de sa soxna sax sa soxna bu la nee léegi may ma cent franc nga jox nga ñëwaat mu ne may ma cent franc nga mu am doo ko jox beneen leneen nga ci teg ak sa doom ak ñi la jege xataa sa yaay te jox ma boobu mille franc waaye nga ñëwaat mu ne mille franc la jeex na doo ma joxaat yeneen mille franc looy wax yàlla nag dafa bëgg bés bu nekk nga naan ko jox ma mille franc bés bu nekk parce que moom am na ko walillahi xazainu samawati wal ard ayuba ñaan na borom bi borom bi subhanahu wa taala daal di koy dindil balaa bi ndax yàlla moo ko mën wa in shaa shay'an kaana laa yajuzuhu say yàlla lu mu soob rek loolu am ndax yàlla moo mën fil ard wala fi sama ci suuf ak asamaan nag waaw ci suuf ak asamaan ñi nekk ci asamaan yépp ak ñi nekk ci suuf ñoom ñëpp bu ñu àndoon ñoom ñëpp ñaanandoo tàllalandoo yàlla jox leen te day des nit ak ginne ak malaayika ak leneen lu dul ñoom ñoom ñëpp bu ñu àndandoo woon ci benn waxtu tàllalandoo seeni loxo ñaan yàlla yàlla joxandoo leen te day des du jeex walla ndax moo ko mën maanaam mu ne walillahi xazainu samawati wal ard walillahi mirasu samawati wal ard mbokk yi foofu ayuba ñaanee ba yàlla nangu ko ñaanam jaa al faraj al ilahi saafara gi daal di ñëw yàlla luy wan ne moom moom du nun docteur bi sax bu nit feebaree docteur bi bëgg mu wér dalay composel ay garab naanal ñaar suba ñaar mi di ñaar ngoon wala benn suba benn ngoon wala diwul wala xeeñtul wala naka noonu kii def médecine traditionnelle da lay composel ay reen defal la ko ci ay butéel di la wax ne balaa ngay ndékki wala boo ndékkee ba pare wala ci waxtu wi ngay lekk wala ah waaw yàlla nag médicament yi mu bindal ayub wax ko demal pharmacie nga jëndi ko wax ko jàmbal ay reen nga naan lan la ko wax ayib mu ne ko ah mu ne ko fi nga tëdd dóoral sa tànk ci suuf aaya boobu war nañ ko laaj ah waaw boobu daa yomb gars yi dañ koy xam surat Sad aaya 42 yàlla mu ne ayub kuy indi aaya bi ah mu ngoog urkud birijlik haada mughtasalun baaridun wa sharab fi nga tëdd foofu nga nekk këddal sa tànk ci suuf si boo dóoree sa tànk ci suuf si suuf si dana ball génne ndox moo xam ne mughtasalun sangu ci feebar bi ci kaw yëpp dañ wa baaridun dafa sedd guy sharaab nga naan li ci biir daal di wér ci biir ak biti soxnaam daf ko bàyyi woon génn bi muy koy bàyyi di génn boobu dafa feebar ba munta wëlbateeku ba munta wax ba munta yëkkati loxo xef yi xiif yi rek ñooy dem munul sax delloo si gémmiñ gi pour ñëpp mu ñëwaat fekk ko mu ngi leer nañ ba mel na jant bu jaawale ko mënatu koo xàmme xoola diggante xef a xippi amul ñaari semaine amul ñaari weer tey ñun si ñun ñii ku fi feebar même booy wér di tane it ay fan la ngay tane tey suba mu kii suba ngay dem ngay dem muy yokk ku la gis ne ah waaw mbokk bi dee ngi tane ndax vraiment commencé daan dajeeg moom jàkka ja sax waaw moom kay léegi sax mu ngi xaw a dox dafa yoroon yat ba ci yàgg nga teg yat bi kii nag nangami at yi mu feebar yëpp nangami at yi mu tëdd yëpp ci xefe xippi mu ñaan yàlla yàlla wéral ko loolu mooy ñuy won ne yàlla moo yor mbir yi kuy jublu bu yóbboo nga jublu ci yàlla Ibrahima waxoon na su ma feebaree wa iza maritu wa yasfini kaana dawa kama lahazna basit mu ne comme niñ ko gisee gis ngeen nu mu yombee xoolal li mu tëdd yëpp feebar moo tax boroom xam-xam yi di wax ne nit soo feebaree garab yi lay faj ñu ngi sawet doomu aadama bu nekk dëkk ba nga dëkk gox ba nga nekk environnement bi la wër li lay faj foofu la nekk li lay faj foofu la nekk gis ngeen kii fi mu tëddoon la ko yàlla ne gas dóoral fi sa tànk ndox dina fa génn nga sangu ci ndox mu sedd la nga naan ci mu ne mu daal di nekk rapidement imtasala ayub amra rabbihi loolu yàlla wax ko defal mu def gis ngeen dóoral sa tànk rek ayuba daal di dóor loolu muy tekki mooy dégg waxu yàlla nit dafa war a dégg waxu yàlla su yàlla waxee defal da nga war a def imagineel mu ne waaw man man ne ma feebar juróom fukki at tey ma ne yàlla dama wéral mu naan ma dóoral sa tànk ci suuf suuf si suuf si su ma ci dóoree sama tànk déedéet waaye yàlla waxam du waxu ak waxu nit loolu moo reyoon iblis su jóotal mu mu bañ bi mu bañee yemu ci loolu de mu naan xelam naan ana xayrun minhu kii maa ko gën yàlla naan ma naa ko def du ma ko def kii itam daf feebar yàlla mu ne ko dóora sa tànk waaye moom dafa def li ko yàlla subhanahu wa taala sant imtasala ayub amra rabbihi wa masal ard mu laal suuf si fa nabaa minha alma naqiyan ndox mu set wicc daal di ball génn ci biir suuf si ndox mu neex saa'igan fa shariba minhu mu daal ci naan fa bari ama kaana fi batnihi lépp lu nekkoon ci biir ba bi mu naanee ci ndox mi lépp lu nekkoon ci biir bi ci feebar dafa wér lépp lu fa ndox ma fekkoon ci feebar ndox mi génne na loolu mu pare yàlla mu ne ko sangul wax tasala fa bari a bi mu sangoo aussi feebar bi nekkoon ci kaw der bi yaram bi nga xam ne boroom xam-xam yi dañoo ñenn ñi dañoo dem sax ba ni dafa ràmmoon am na sax ñu ëppal naan ay sax dañ doon génn ci yaram bi borom bi subhanahu wa taala daal di wéral loolu lépp nee na ndox mi mu naan ak yaram bi mu ko sang fépp fu ndox mi laal fépp fu ndox mi jaar mu fekkoon ne foofu feebara nga fa ci biir ak ci biti mbir mi daal nay génn ci yaram bi ayuba daal di wér ci ay seconde ci seconde mu daal di wér nee na fekkoon na soxna si daal di génn ay minutes yu ndaw yi mu daan génn pour lijjantil ko lu mu lekk wala lu mu naan mu daal di dellusiwaat mu fekk góor gaa ngi wér boroom këram mi ngi delluwaat ni ko yàlla subhanahu wa taala defoon ndeysaan mu ne keroog yàlla natt bi mu natt soxna si da daan génn teel a ñëw keroog dafa génn daal di tardé ndeke hikma bi nekk ci loolu mooy tardé bi mooy dafa am lu ko yàlla bëgg a def bëgg a defal bëgg a dencal mooy cadeau mooy dafa bàyyi kii feebar waaye buy ñëwaat daf koy fekke wér te yàlla bëggul rek mu ñëw fekke muy wér nii attentivement kon mbir mi du nekk kiimtaan ci moom dafa war a génn ci ay minute mu del siwaat mu fekk kii feebaroon wér na loolu moo daloon Useyru romb benn dëkk ñépp dee mu ne lii est-ce que yàlla mën na ko dekkil yàlla ne ko deewal xaw ma kande waaye yow moom li yow laay tàmbalee deewal mu dee moom mbaam bi mu waroon mu def fa ñaataat téeméeri at yàlla dekkil ko fekk njabootam daanaka ñii dee nañ ñii màgget nañ ñii yàlla dekkil ko moom mu ngi nekkaat nu mu meloon mu ngi nekkaat jeune mu ngi nekk ni mu meloon te caatam bi mu bàyyi woon daanaka am na téeméeri at bi ko yàlla dekkilee moom dekki na taxaw léegi nag yàlla da ko yoon kéemtaan ne ko xoolal sa mbaam mi waaye balaa mbaam mi xoolal lekk yi nga yoroon bi ngay tukki raisin bi nga yoroon ak lekk bi dara foroxu ci changé wul anzur ila taamika wa sarabika lam yatasanna yàlla mu ne ko xoolal mbaam mi dinañ ko dekkil ci sa kanam sàng ko yàpp sàng ko der bi wala du loolu ah bi mbir mi leere ci moom lan la wax ala kulli shay'in qadir bi mbir mi leere mu ne ah nekk xam naa ne yàlla moo mën lépp kon yaa yàlla mën lépp yàlla inna allah ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la mën doomu aadama kay moo tële moom ngay wax mu am lu mu mënul amma allah subhanahu wa taala moom lépp la mën inna allah ala kulli shay'in qadir mu ne wa aada zawja soxna si daal nay dellu si ci fekk borom kër gaa ngi wér mi ngi delluwaat ay activité am toog mel na mu meloon waaye sax gën a leer loolu ndeysaan nee na bi mu gisee waa ji lam taarifu xameetu ko ma annaha raat fiihi shibhu zawj waaye bu ko xoolee bu baax ah kii di nuru nag sama jëkkër nuru nag moom de am na yenn melokaan yu mu yu mu seetlu waaye mënul xam ne moom la 100 pour cent lu tax affaire bi dafa gaaw ki nga bàyyi def feebar mu mënul wëlbateeku nga ñëw fekk mu ngi leer nañ ñu toog gisoo dara benn dara ci yaramam mais mu commencé xàmmee ay yenn melokaan yoo xamante ne mi ngi woon ci jëkkër ji ne am na lu mu nuroog moom ah waa ji commencé di wax ak moom yenn langage yoo xam ne xam nga ne yow mii kii di wax ak yow xam na la waaye foo demoon da nga tardé sànqabale nga naan ah waaw kii xaw ma ko mu naan noonu bu kii mooy kan bu la ne ana téeméer bi ma la joxoon sànq te ma la ko joxoon rek xam nga loolu day gën a garaaw waa ji commencé di wax ak moom langage bu mel noonu mu ni bopp kon ki yow ayub la mu ne ah burul man kan la waaw yow ñoo fi nekk fii nga ma bàyyi woon ma dem waaw kañ nga mel ni mu ne xanaa gisoo li sama borom moo ma wax ma sangu ci li naan ci daal di wér sunu borom subhanahu wa taala ndeysaan mu ne wa kaana faraxuha ndaw si kontaanteem ak bégam keroog rëy na trop trop trop trop indama raat ni'matullahi alayhi fi raddihi aqibatahu wa sihhatahu ilayhi keroog bi ndaw si gisee sunu borom subhanahu wa taala delloo waat jëkkëram wér ndaw si kontaan na bég na bég boo xam ne xam ne ne lii yàlla rek subhanahu wa taala moom moo ko mën keneen mënu ko ku dul sunu borom ñaareelu tomb bi mooy wa aataynaahu ahlahu wa mislahum maahum léegi nag yàlla yàlla du koo xam ne daf lay fekk nga yor teraanga mu nattu la teraanga bi dem ba pare mu wéral la delloo la sago bàyyee la noonu ay loxoy kese kon day des yàlla yemul ci delloo ko wérgu yaram gi mu amoon waaye bépp dërëm bu ayuba amoon yàlla def na ko ñaar dërëm bi mu ko koy delloo soo amoon benn tool yàlla bi mu koy delloo def na ko ñaar boo amoon benn mbaam def na ko ñaar bal sax sàq yi xam ngeen sàq fi mu daan dénk dugub beeg ceeb beeg mboq mi yàlla daf ko ko feesal or ak xaalis wa aataynaahu ahlahu yàlla delloowaat ko njaboot gi mu reyoon ak mbokk yi wóoroon njaboot gi yemul ci loolu waaye wa mislahum maahu duubul bu toll noonu la amaat kon ku yàlla dig war ngaa gëm su ngeen gisee noon yi di ñu tere jàng alxuraan parce que alxuraan bis bu la yeewee ba nga dëgër ñu forme la ci ba nga ne keng pare nga xoole yaayu Moussa am doom ñëw di wër sa doom pour yóbbu ko rey ko yàlla ne la jëlal doom ji dugal ko ci kees laxas ko ci sagar dugal ko ci kees nga sànni ko ci dex gi kan ci ñun fii mooy am 5000 ñu ne la dugal ko ci dex gi nga dugal ko ci 5000 laa wax 5000. waxuma doom de ku la wax moom sa doom dugal ko ci dex gi police nga jëm 5000 laa wax kan ci ñun fii mooy am junni fukki junni 100000 francs ñu ne la def ko ci géej gi nga def ko ci ki doom doom doomam la ko yàlla ne def ko ci kees lu tax ñu ne ñu ne garde yi bi ñu nee tëll di wër doom ji da fekk yaay ji mu am doom ba pare ma mu fekk cin buy tàkk rek mu dugal ko ci fekk xamul dafa tiit xam nga tiitaange day day tax nit def lu mu warta def bi garde yi ñëwee xool gisuñu léegi nag ñoom dem nañ mu war a xool nag léegi fan la dugal doom ji ndekk ci biir cin bi la mu ubbi gis xale bi dara laalu ko moo tax bi ko yàlla ne def ko ci dex gi amul yàlla mu ne ko inna la radduhi léegi dinaa la ko delloo gis nga mu am pas-pas ne yàlla di ma yàlla mii moom ko wax yàlla daf koy def yàlla du waxantu xoola ñun loolu mooy sun loolu la ñu ragay nag loolu la alxuraan wax mu nga yàlla ne ko dinaa la ko delloo yàlla delloo na ko ay yu baa ngi nii yàlla perte loo ko lépp ay yàlla delloo ko lu ko raw te chaque jour dafa bokk ci melokaanu borom bi subhanahu wa taala bu buy delloo du la delloo rek lim la joxoon yàlla bi mu nee yaayu Moussa dinaa la delloo Moussa lu mu ci teg du ma yem ci delloo la ko waaye dama koy def aw yonent bu ñaa baango dama la koy delloo ba pare def ko ab yonent gis ngeen ayub bi ko yàlla wéralee yàlla delloo na ko njaboot bi wa aataynaahu ahlahu mooy premier wa mithlahum maahum wa kullu ma radda allahu alayhi afiyatahu wa sihatahu radda alayhi di fil maal allazi faqadahu yàlla yamul rek ci delloo ko wérgu yaram gi ak tawfiix ak may ko jàmm waaye yàlla dakaa dubleel alal jim ko joxoon bi nga xam ne moom la ñàkkoon wa razaqahu di'f yàlla wërsëgal ko double li am li mu amoon ma kaane indahu min al awlaad bu amoon téeméeri doom yàlla double ko bu amoon juróomi doom yàlla double ko bu amoon alal tool yàlla double ko lépp lu mu amoon yàlla double ko faqad arsala allahu sahabatayni yàlla dafa yónni ñaari niir ñaari niir yooyu yenu wuñu taw de yéen lu ngeen xam ci niir taw mu ne ñaari niir yi laa taxmilaani mataran de yenu wuñu taw de xam ngeen la lañu yenu bal zahaban wa fidda allahu akbar allahu akbar ay waay mbokk ñun ban asamaan moonu tim asamaan buy taw urus ak xaalis yàlla yónniwul asamaan bi niir yi ne leen dem leen ngeen taw ndox bu ngeen tawee ndox foofu day tooy waa ji demal nga bay après dina sax après nga góob nga def ay saak nga jaay nga am xaalis non loolu dafa yéex ku mënul mooy jaar foofu kii dafa mën innama amru iza arada shay'an an yaqulu lahu yàlla yónni niir bi niir yi ëmbunu ëmbunu ndox waaye lan lan ëmb zahaban wa fidda furus ak xaalis wa kaana li ayub bidaaraani amoon na ay sàq ñaar benn bi li xam la woon xam mooy lan blé wal aaxar li saïr beneen bi lan la woon pour dugub ñaar yooyu niir yi remplir ko ba mu fees del del del del del or a xaalis bu yàlla yemoon ci delloo ko wér-gu yaram gi rek doyoon na parce que nit li gën a cher ci dund lu mu am lu mu ñàkk mooy wér wér rek wér wér ndeysaan wér barki démb damay liir weegi ci benn xis benn góor goo xam ne dafa dund juróom-ñett fukki at juróom-ñett fukki at la dund dara mos ko métti parce que borom alal la ay njabootam borom alal lañ lu ko neex lay lekk lu ko neex lay sol fu ko neex lay dem lu ko neex lay war lu ko neex lay tëdd 80 ans lu ko neex rek lu ko neex benn bis mu xëy bëgg a tuur ndox xale yi bëgg a saw mënul saw ñu yenu ko yóbbu ko kër docteur hôpital bi gën a rëy ci hôpital lu àdduna bi ci docteur yi gën a mag ci àdduna bi benn docteur daw assisté ko ndax doom yi dañoo am alal fexe defal ko ay ba góor gi saw ndànk tuur ndox ndànk yi fi mettit bi daal di deñ góor gi nekkaat forme doom yi ñëw di gërëm docteur bi ku nekk génne chèque di bind ñaata lañ ko war a jox ñaata lañ ko war a neexal quoi di ko gërëm wala ci di ko di ko di ko gërëm waxuma yem ci di bind ay chèque mais ay kàddu waaw yow vraiment da nga dimbali sunu papa yow ah rek góor gi jooy góor gi jooy xale yi gestu ne ko waaw papa lan la looy jooy mu ne jooy ma li ngeen di wax waa ji de mu ne waa ji lan la ma defal gars yi ne ko def la dimbali nga tuur ndox mu ne ko ñaata yoon la ma ko defal ñu ne ko moo la ko defal tey tey rek la mu ne yàlla nga ma koy defal juróom-ñetti fukki at kenn sant ko juróom-ñetti fukki at maa ngi lekk kenn dimbali maa ngi naan maa ngi solu maa ngi kenn santul yàlla kii defal ma tey lii rek yéen ñëpp ngeen sant laa ilaha illallah nañ leen xool suñu bopp foofu ñun ñëpp nag ah te tey boo demoon sax sa soxla tegal la reer nga reer su ne ko merci ah mais tey sa reer bi garaaw na tey la ko toggee waaye yàlla mi la wërsëgal doo ko doo ko gërëm ñu am nga fit sax ñeme ngaa tëdd te doo ju liggéey waxuma la sant yàlla wala tey bu la nit utaloon liggéey rek looy def non kii sama dund moom moom moo ñu ngay gis waa ji commencé saalit kii moo defar sama dund allahu akbar liggéey rek la dootal liggéey yàlla nag xoola góor gi ñëpp di gërëm moom mu jooy ndeysaan waaw papa looy jooy mu ne ñëpp yéen a ngi sant kii santu leen yàlla juróom-ñetti fukki at yàlla ngi may dimbali may tuur ndox ba ma nekkee xale ba mu nii ma toll juróom-ñetti fukki at kenn gërëmul yàlla tey kii benn fan la ma dimbali ñëpp di ko gërëm loolu rek mooy suñu problème ñun jullit yi tey duñu gërëm yàlla duñu sant yàlla waaw suñu xel du nekk ci yàlla kenn ci ñun sa xel du dem ci yàlla par minute par seconde tudd rek ñenn ñu tane ñi sax xanaa boo lekkee ba suur ñenn ñi bu ñu lekk ba suur ne alhamdulilah ñeneen ñi sax ñoom bu ñu lekk ba suur ñaan jërëjëf diw bu doon diw ceeb bi du niin waaw benn waaye nee na ma ay sénégalais dañu nekk Europe dañuy burle métro bañ a fay bu ñu leen ne doo fay ñu ne diw moom moom métro bi kenn du fay ah diw nu moom mooy métro bu nekk France ak Angleterre ak Allemagne di daw moom mu ngi woon Sénégal te dee na bu yàgg nu mu ko moomee non diw moom moom moom rek moom moom métro bi ñun duñ fay loolu ci lan la bokk loolu du diine dañu war defaraat suñu bopp de suñu diine suñu jikko yi ñoo yàqu borom bi subhanahu wa taala delloo na ayub lii lépp mbokk jullit yi yàlla delloo ko waat ba lépp ne gàññ lépp lu ayuba soxla woon lépp lu ko yàlla fekke woon ci jamono bi ko feebar bi dalul ayub alayhi salaam yàlla delloo ko delloo na ko loolu ndeysaan moo tax olof yi dañuy faral di wax ne ku muñ muñ ku muñ muñ loolu mooy inna maal usri jafe-jafe boo gis na nga xam ne yomb yomb moo ci topp bu fekkente ne jullit nga ab jullit du ñànki ab jullit du yàkkeeku ci yërmande yàlla ab jullit du naagu ab jullit du yaafus ab jullit du yaakaar keneen ku dul yàlla lu mu metti metti metti del wax inna allaha ma'i inna allaha ma'ana maa ngi ànd ak yàlla benn xale bu jigéen boo doon def bag ci jamono yi ci jamono yi bag di am njëriñ neen bàyyi leen ma de ci jamono yi bag bi am njëriñ bag amoon na njëriñ Sénégal de ci jamono yooyu xale bu jigéen bi doon ko def mu ngi doon def série E nga xam ne ñooñu ay technicien technicien la waroon nekk mu ñëw war a def bis bis bi ci ak kaala geeg xijaab bi war a dugg ci machine yi tubaab bi ne ko mais aujourd'hui bon xanaa laaj ko tubaab quoi ne ko sa kol gi xanaa di mu ne ko pour bac jamais tubaab bi tiit ne ko i i i pardon pardon ay daal di tiit pour bac ma dindi sama kol gi pour bac mu ne jamais rek tubaab bi tiit bu tubaab ak tubaab a ko yoroon gis ngeen parce que yàlla ñun tey buñ ko waxoon benn waay doo kii mu ne waaw waaw waaw ah liggéey jaamu yàlla la te liggéey laayu non liggéey jaamu yàlla liggéey laayu benn waaye bu ñu ne fii doo fi julli mu ne waaw waaw dama koy leb ba dem kër ga ah. am na ñàkk imaan ñàkk ngëm foofu lan toll foofu lan toll yal na yàlla yërëm nga xamuñu ne yàlla mooy joxe te yàlla moom bu la joxee rek nga xam ne moo la jox au lieu nga ñaan yàlla. yàlla mooy joxe yàlla jox la ni mu joxee nit ñi déedéet yow da ngay dem ci nit ñi nettali woon naa leen bi benn xista benn waaye bu tëdd di nelaw mu gént ñu ne ko demal kër diw boo demee lépp lu mu soxla jox ko ko areeral sa oto bi def ci lépp lu nit di soxla dund ci biir këram loolu lañ ko wax ci gént bi demal ci sa magasin jël fa lépp lu nit di soxla dund ci këram nga def ko ci oto bi ba mu fees nga yóbbul ko waaj mu arrière otoom def ci lépp taal ci guddi gi ñëw ba ci kër waaj yi fëgg waaj yi ubbi mu ne ko yaa ne yaa moom li nekk ci maal bi mu yëkkati maal bi waaj yi yee waa këram ñu wàcc lépp ba mu jeex takk waaj yi jox ko loxo bëgg a tëddi mu ne ko taxawal taxawal waaj yi taxaw mu génnee carte visite am ne ko xoolal sama numéro téléphone moo nekk fii bu affaire bi jeexee woo ma ma indiwaat waa ji ne ko yóbbul yóbbul carte bi mu ne ko ah mu ne ko lan laa koy dee ki la tere nelaw ba nga indil ma lii ci kooku laay waxal rek. ki la yee guddi gi nga bàyyi say nelaw ba ñëw indi lii man kooku mu ngi fi lan la lay dee numéro téléphone. la ilaha illallah kooku ngi fi lan laay dee numéro téléphone ñun nag kooku moo nekkul ak ñun. yàlla na yàlla def mu nekk ak ñun suñu darsu tey insha allah fii la ñuy yem asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu amin